boo ne man nag tiim moom daaw ma ko def faaw damay jàpp ba faaw damay sangu ba waxtu waraw la da nga am bàkkaar bu mag ndax danga ngaa waroon jëfe ndigal lañ la joxoon rek kon nag kay tukki ak ka tukki wut ñoo ci yemoo saa yoo xam ne waxtu waxat na rek dañuy bàyyi ndox ma te daal di tiim sàmmonteeg waxtu am ci baraka balaa jeex bokk na ci ngant yi nga xam ne itam day tax nga tiim mooy nga am ndox waaye ndox mi soo ko sangoo mbaa nga jàppe ko doo am loo naan rawante na nga xam ne yaakaaroo feneen ndox nga xam ne boo naanul dee kon moom day war nga naan ndox ma mbaa sax bu fekkee ànd nga am ndundat woo xam ne moom it lor na ca ndox ma da koy jox ndundat woowee mu tooyaleef xolam naan te yow nga tiim lislaam ak jàpp ndal lool la saa yoo xam ne rek yor na ndox waaye lor na ca ci jëfandikoo ga ci naan mbaa ndundat wam àndal loru ci jëfandikoo ko nañ ko naan te daal di wëlbatiku tiim loolaay farata ja loolaay ndigal la moo tax mu tekki nag wala nafsin du jaagéenu ñeel la aw lu jum xëtin mbaa ñeel julli jumaa wala janaasat du jaagéenu ak tàdd lam a yéen goo xam ne ràññi ko wut fa aqilan na nga xellu maanaam dama na ngi fi nga dëkk te wér nga doo sañ a tiimal naafila nit ki bu fekkee baaxoon ngaa julli yor yor doo sañ a jekki-jekki tiimal yor yor li ngay julli li ngay jullee jullee néew goo xam ne ràññikul ci yow mooy ku amee jàpp nekk na fa mbaa kuy tukki ba farataam nekk tiim nekk na fa mbaa ku tawat nekk na fa yow na yow dëkk ñàkk ndox rek moo tax di tiim kon doo mën a ci julleen néew ga da nga xam ne moom sëñ naa tiima julli yëpp muy ka tawat mbaa kay tukki kooku jullee ko waaye doo ci mën a ànd foo ko yow dong yaa fi nekk nag te mëni su koo ñàkk tiima jullee ko moom ñëw ba bu ñu ko defee mu soppiku kon du mën a ñàkk nga daal di gaaw tiim jullee ko ñu mën ko jébbal boroomam ràññu ki daal mooy néew bi bu ñu ko dal di jullee jébbal ko boroomam dana soppiku kon su boobaa moom yow mi nga xam ne fa nga dëkk te wër nga ñàkk ndox rek moo la tax di tiim du tee da ngay tiim rek kon jullee ko ñu jébbal ko boroomam te nga kenn nekk fu ku may yow waaye bu fa juróom njàpp nekkoon doo ci mën a bokk bu fa tawat nekkoon mbaa kuy tukki nga xam ne ñoom seen ñoo tiimal julli yëpp ba tey doo ci sañ bokk nga delluwaat nag leeral mbirum jullik ajjuma jullik ajjuma bu fekkee ne ndox daa amut kon des koy tiimal julli ko ni ñuy tiimale mboolem farata ya ca des mu des nag bu fekkee ne ndox am na da ngaa ragal ne boo fi nekkee di sangu farata te fekk sangu moo la war mbaa boo fi nekkee di jàpp far jumaa ja raw la kooku nag moom bu boobaa doo sañ a tiimal julli jumaa ja déedéet faaw da def la la war muy sangu mbaa jàpp la la ca war nga def ko bu la jumaa ja rawee nag nga far julli tisbaar waaye doo mën a tiimal ajjuma nag fekk am nga ndox ma ngay jëfandikoo ragal rek mu raw la moo tax kon foofu am na teqale bu ndox ñàkkee moom dañuy tiim julli ajuma ni ñuy tiimale farata ci des waaye nag bu fekkee ndox am na dañ koy jëfandikoo rek bu ajjuma ji rawee itam ñu julli tisbaar mu wecc ajjuma ca bis booba faslun li ab dog la fii faraidihi ci ay farata moom tiim xaddu faraidi tayammumi limu faratay tiim buri xameef na ko tamaaniyan muy juróom-ñett indal faqih fa aji dégg ci fiq al axdar yi kay ko jug axdar bi abdurahman yeena tiim boo ko dee wàññi ci ni ko boroom al axdar yi andee juróom-ñett la te loolu moo siiw ci yoonu Malik seen yetun mooy yéene yéene mooy da ngay dagan loo julli ca tiim ba nga xam ne bu ne tegg foofu lay teewloo yéene ji yéene dagan loo julli loolu mooy benn farata bi su saa yi dun topp pàkk taxura bopp laab na bokk na ci faratay tiim mu tiime ci pàkk bu laab bi ne pàkk bu laab nag mooy mu tiime ci loo xam ne yoon moo ko jox ndigalul tiim ca maanaam daal mu tiime ci luñ sañ a tiime luñ tiime nag moom suuf moo ci gën waaye du suuf dong dana ko leeral léegi sax lan mooy pàkk bu laab wa barbatun akub dóorin ula bu jëkk bi naf din ànd akuk fëgg umire goog dégleef na ko dañ koy firee dóor rek waaye jubluwuñu xàcc dóor teg rek lañ jublu la ngay tiimee da nga cey teg sa loxo ñaari yoon teg bu njëkk ba nag nga xam ne ci ngay masaa kanam gi mooy nekk farata tegum ñaareel bi nga xam ci la masaa loxo yi mooy nekk sunna loolu mu ne bi naf den ànd ko fëgg nag mooy bu fekkee bi nga tegee say loxo ci la ngay tiimee lu mel ne ay bant wala xaaxaam wala mën a gaañ ci caa taq loxo yi da nga koy fëgg ndànk door a masaa kanam gi ndax dañuy bañ booy gaañaale la waaye li sax taamuñ sax nga bañ a taq ba tax nga faxa suuf ba mu set dañoo bëgg suuf sa pënd ba àndaale ja kagaaka naka noonu masul wacci masaakanam nga bokk na ci farate tiim kanam ba mu daj lépp loo xam ne boo doon jàpp danga ko raxas rek ci njàpp mi booy tiim nanga ko masaa ci tiim bi wal yadayn ak ñaari loxo ya minal asaabi yi tàmbalee ci baaraam ya ilal kooxay ni ba ci ñaari tikku jara ya ba tey masaa ñaari loxo yi benn bu ci ne da tàmbalee cati baaraam ba fa ngay takk montar ba fa ngay takk jara bu dee jigéen loolu farata la ndaxam boo dee masaa dooyam foofu waaye la tàmbalee ca cati baaraam ya ba fa ngay takk jara mbaa montar loola mooy farata la tàmbalee foofu nag ba ci conj doon sunna daañu ko wàññi ci sunna ya wal fawru ak gaaw maanaam boo tàmbalee tiim rek bul ko bàyyi di def leneen mbaa waxtaan ba mu nga door di bëgg a jàll loolu ko defee mu yàqu wa duxul ak tàbbi ga ca waxtu ya dañuy sart lépp looy tiimal rek na fekk waxtoom jot nga xam ne kon la ngay tiimal fekk waxtoom jot faratale ci tiim suñu laa tiimal loo xam ne waxtoom jotagut moom it fa bokk na ci al ittisaalu jokku ga bis salaati ci julli ga bokk na ci faratay tiim na tiim bi sës ci la taxan ngay tiim bu dee jullee bu dee leneen kon booy wàññi farata yi ci tegale nga ne yéene muy benn tiime ci loo xam ne yoon moo la jox ndigalul tiim ci te loolu mooy pàkk bu laab muy ñaar teg ba ngay njëkk a teg sa ñaari loxo ca la ngay tiime muy ñett massa kanam muy ñeent massa ñaari loxo yi la dale ci baaraam ya ba fa ngay takk montar mbaa jara muy juróom ak sësale gi bañ koo dagg boo tàmbalee boobu ngay noppi mu juróom benn ak la ngay tiimal fekk waxtoom jot mu juróom ñaar ak tiim bi sës ci la taxan ngay tiim mu juróom ñett amma saa yi du ndaal pàkk fu huwa moom atturaabu mooy suufus kese wattuubu ak moolu ban wal xajaru ak doj laa tartaabu bu leen sikki sàkka buñ ne pàkk bu laab mooy rek tiime ci loo xam ne yoon moo la jox ndigalu tiim ca la gën ci lépp li ñuy tiime nag mooy suuf tiime ci suuf moo gën lépp leneen lu ñuy tiime waaye moolu ban boo xam ne kenn lakk ko kenn def ci leneen mënees na caa tiim ba tey doj woo xam ne na ko yàlla sàkke kenn soppiwu ko ni ki doju carrière mbaa doju dënnu mbaa doju kew yu mel noonu mënees na ci tiim bu ko loxol doomu aadama soppi mel ni moolu ciment nag yu mel noonu di su ci mën a tiim wala ay karo di su ci mën a tiim wattal ju galaas wal xabu ak ban bu rem rem bi jaa adikk na fi naqli ca toxal ga galaas mënees na cee tiim ban buy rem rem mënees na cee tiim te woote nag daam ñoo wax ne boo tiim ci lu mel ni galaas mbaa ban bu rem bi am nañu ne boo tegee say loxo da nga koy fendal tuuti ba mu fenn nga am na ne déedéet da ngay teg teg bu ndànk rek daal di raay fa saasa kon wuute bi mooy ndax da ngay teg bu baax ba noppi mel ne ku ko bàyyi ba mu xaw a fendi am na ngay teg ndànk rek du tool bu baax nga daal di raay fa saasa loolu am na ñaari waxin wana xuuxa ak ñu mel ne ñoom nga sabuxati ni ki suufus xorom waram leen ak beeñ sabuxa dañ koy wax ceeñ ci wolof waaye suufus xorom la maanaam suufus beeñ mënees na cee tiim suufus suufus xorom mënees na cee tiim ba ci xorom sax boo ko fekkee fañ koy tibbee nga xam ne foo fa la cosaanoo sax da nga ci mën a mboolem xeeti mbel yi loo ci fekk fañ koy gase nga xam ne foofu la ko yàlla dëkkal da nga ci mën a tiim bu ñu ko toxal andi nag ba mu nekk alal ji ñuy xëccoo nag ko jaay ak jënd nag moom doo ci mën a tiimati wala muy gis daganut teyam mu mun tiime bil xushi ci ay bant wala gis ak laso matt boo xam mbir mu togg di xaw li nuxu bi ci waxi tànnee fi ay bant moom mbaa dara loo xam ne suufa ko kenn mënu caa tiim suuf lañ mën a tiim waaye lu suuf saxal moom kenn du ci mën a tiim laso itam buñ ko toggee ak bu fekkee togguñu ko waaye dañ ko indi muy alal ju jafe ñu koy jaayee ko jëndante ba ne tiim boo ko fekkee nag moom jëmmi toj ya ci fa nga xam ne fa cosaanoo ñu ko fay gas moom da nga ci mën a tiim awil xasiir wala ak romb jaan te wax tasarant ci waxin wala fu yàgg yi waaye jàppale ne ak basan daal mëne su cee tiim moom aw xasiisin wala ab boob saabitin bi aji sax wa nax yi ak lu mel ne moom man nga ne wanax yi ak lum roog moom min ku la nabtin ci gépp gàncax naabitin gi aji sax boob bi nga xam ne moo sax nii ci suuf mbaa beneen xeetu gàncax man doon rek mëne su caa tiim ci gàttal daal suuf ak mën a tiim waaye la suuf saxal moom mëne su caa tiim wa in tawat nga xinda xaitil xajari fa ba maanaam fa miir doj ba rek fa miiru ak moolu ban xataa xaq ba gàllankoor ak dararu lor ja gis ma ko sa yaram walam tajit ti amoo mën koo xam ne yati dana la andil doctorat bi ci suuf fa lakk kon ñeel na la fii ca miirub doj boobee wala moolu ban ba ruxsatu tawwaa bi yolomaluk yàlla miy jéggal ku tuub nee na boo tawatee jóg tiimi ca suuf sa yomb la te gisoo ko la jot li suuf waaye miir gi denda yow moom dañ koo tabaxe ay doj yoo xam ne loo loxol doomi aadama soppiwu ko ni ki doji carrière mbaa doji dënnu bala yooyu moon tegale ba mu nekk miir ba ah, wala mboolu ban banu kese buñ lakku defuñu ko dara moom lañ tabaxi miir ba yépp kon mën nga caa tiim ndax suuf daa gën ci lu ñuy tiim rek waaye léegi te mënees na caa tiim te ndegam na tawat ba laa jóg fekk suuf sa gisoo ko ko nag mën ngaa doyloo kon tiim ci miir li ab dog la fi sunna ni ci sunna ya ñëw ci sunanahu sunaam ya talaasat ñett la inta adut ndéem da nga leen lim awaluha aji jëkk seen tajdiidu darbatil yadi mooy yeesal dóorub loxo ba dafa jublu yeesal tegub loxo ba ay sunaam moom bariwuñ ba ci mooy teg ma ngay teg sa loxo ca la ngay wax ne ne bu njëkk ba farata la nga dellu ko defaa benn yoon muy ñaar nag ngir nga ma loxo yi nag mooy tegum ñaareel bi moom sunna la muy wal masu ak masa baynal ko waxi diggante tikku jaraba wal marufxi ak conca la xam nga da booy masa doo yem ci fi nga takk jara mbaa montar da ngay jàll ba ca conca la da diggante nag fa ñu takk montar ak conca la diggante boobu masa ko sunna la summa saalisatu sunna ni topp aj ñetteelu sunna ya tartibul moo di ak toxtale yaamu boog dana matale sunna ñetteel bi nag mooy nga toftale tiim bi nam tegaloo mu tegaloo na xam nga tiim moom masaa kanam ak masaa loxo dong la nga njëkk masaa kanam nag door a masaa loxo yi loolu mooy tegale bi nga defe ko noonu sunna la ko yet sunna yaa ngoog tegaat yow na ñaareel sa ñaari loxo ca la ngay tiime ngir masaa ci loxo yi muy benn ak masaa la nekk diggante fa ngay takk montor ak conc la muy ñaar ak toftale tiim bi masaa kanam jiitu masa loxo ya muy ñett al fadailu lii moo di nganeel ya tumal fadailu topp nganeel ya tooxaat du def na leen lim arbaxata mbir mi ñuy ñeent awwaluha aj jëkk seen tasmiyatun moo di wax bismillahi fal tasmaha na nga dégg bokk na ci nganeeli tiim te ñeent rek lañ booy tàmbalee tiim nga wax bismillahi muy benn waqaddim te nga jiital alyum naa ndeyjoor ba xalal yusra ci càmmoñ ba kama taqaddama naka mu jiitoo woon fii xëyri yi tiim fadilatan mbir muy ngëneel ba tey njëkki ndeyjoor mujj càmmooñ maanaam ñaar loxo yi boo leen di masaa nga njëkki bopp ndeyjoor mujjee bopp càmmooñ ba tey loolu ngëneel la fii ci tiim nam ko doone woon feneen niki ca jàpp ak naka ca càngaay waxaa kasaa niki nii taqdimu zahiri diraahi jiital bitti xasab ba aydan ba tey xalaa baatini ca biiram ba duuna nisaa ci lu dul xëccoo ba tey booy masaa loxo bu ne nga njëkk a masaa bitti bi loxo ba door a masaa biir loxo ba ndax loxo bi daa am biir ak bitti loxo bu ci nekk nag nga njëkk a masaa bitti ba door a masaa biir ba loolu ngëneel la muy ñett waqaddima na nga jiital muqaddamal axdaay njëlbeenu cëree xalal mu wax xarit lañu mujje wala xalal mu wax xarit mujju cëree bi la tis naañ ci lu dul seetee ba tey loxo yi lay wax naa boo leen dee masaa nga tàmbalee ca ci baaraam ya ba ci conc la dellu tàmbali waat ca conca la ñëwaat ba ci baaraam yi loolu nga la kon jàppal ne booy masaa loxo yi nga njëkkee bitti ba ngëneel la waaye booy masaa loxo yi ba tey nga tàmbalee cati baaraam ya wut si conca la moo gën tàmbalee conca la wuti cati baaraam ya aman nawaaqidu ndaal way firi ya jamihan boole seen fakkama taqaddama mi ngi mel nam jiitoo woon rek nana dooy ci njàpp mutlaqan ci lul benn teqale wala nga ne mutlaqan lu mën di doon nee na yi yàq tiim nag moom mooy ya nga xamoon rek muy yàq njàpp luñ ne woon dana firi njàpp rek xamal ne ba tey dana yàq tiim nga dolli ci benn illaa li lay limaa yi nara ñeel amum ndox min xam li duxooli ci njëkk tàbbi ca julli ga laa ba àndaxoo du caagéenu gannaaw tàbbi ca julli ga dama nasta ni ki yaxale bi ci moom an nabi lu aji xellu ja am na lenn loo xam ne mën naa yàq tiim de te mënta yàq njàpp mooy nga tiim ba àggal laata ngay kàbbar far amum ndox xam ne yow ndox rek nga ñàkkoon te laata ngay kàbbar bi nga tiimee ba noppi tar nga am ndox te waxtu yaatu na mën nga faa jëfandikoo ndox ma am ca brak su boobaa kon tiim bi nga tiimoon yàqu na ne boo xasoon tàbbi ci ba tàmbalee julli moom am ndox du tax a dagg da nga rek moom waaye li mu wax nag mooy jotugu laa tàmbalee julli sax te am nga ndox te waxtu yaatu na ba mën nga faa jëfandikoo ndox ma am ca brak wa mën a tere na alxibru fóore ja allësi ja nga xam ne wax a wattu na alfiq fiq fardayni yaari farata xadd jumiha yoo xam ne booleef na leen ñoom ñaar fii tayammumin ci benn tiim nee na boroom ak boroom ak axdar yi ak mbooleem boroom xam-xam yi fiq yi sax ñoo ci maase nanguwuñ nga tiim benn tiim bëgg cee julli yaari farata lañu nangu kay mooy faaw rek benn tiim bu ne benn farata rek lay mën a julli boo xaaroon ba takkusaan jot te fekk jullee boo tisbaar te fekk yow sa farata mooy tiim da ngay tiim julli tisbaar dellu tiimaat julli takkusaan waaye mën laa tiim benn tiim rek julli ci yaari farata laakin waaye nawaafilun ay naafila kasiirat ni aji bari jaayisatun aji dagal na bii ci benn tiim innu yet ndem yéeneef na leen fanta bi na nga yeewu waaye nag mën ngaa boole ay naafila yu baree bari ci benn tiim dong ne bu fekkee ne dañoo toll ci waxtu koor mbaa sax du ci waxtu koor nga jubloo naafila rek fukki raak ak ñaari wetar boo tiimee benn rek daal di mën a wéy tegam sa faratu mooy tiim boo tiimee rek daal di mën a wéy ci mboolem naafile yëpp ci benn tiim bi ndegam loolu nga yéene woon innal lësi nag ak nga xam ne xat taya mooma tiim na lil fardu ñeel farata jaasu dagal na loxoo ñeel ko baax du ci gannaaw ba an nawaafilu ay naafila kama loxoo naka mu ko ñeele ak wër kaaba kaamil bila xilaafin ci lu benn wute bi sharti niyatin ci sart bi yéene maxa tisaalin ànd ak jokku maxa du xoolil waqti ànd ak tàbbi waxtu wa bi tawaali ci toftaloo nee na sax boo tiimalee farata mën ngaa jàll tiimu farata boobee nga teg ci ay naafila mbaa nga teg ci jàll alxuraan mbaa nga teg ci wër kaaba wër kaaba goo xam ne moom nekkul farata mën ngaa jàll itam teg ci laalub kaamil waaye yëpp day fekk nag booy tiimal farata ja nga yéene woon ci yii te fekk nga amaale woon ci yéene ja te mu sës te bu am waxtu fekk waxtu loola jot kon mi ngi mel ne tey rek boo doon tiimal tisbaar boo ko ci yéenee mën nga boo noppee ñaar rakk ya nga daan ñeent rakk mbaa ñaar rakk daan teg ci gannaaw tisbaar benn tiim ba nga tiimale woon rek tisbaar ngay jullee ca ñaar ñaar rakk ya mbaa ñeent rakk ya wala boog ngay tiimal timis yéene ci doon na koy teg ca ñaari rakk yooyu naafile yi mbaa ñeent ba juróom-benn xam ne kon daal tiimal farata moom jaal teg ca naafila mbaa jaal teg jàngal xuraan mbaa laalu kaamil yooyu yëpp daal moom bu fekkee yéene ko ca ba ngay tiim rek da ko ca mën waaye day aajo mu sus ci nag ñu bañ a soree wa in tayammamta ndéem tiim nga li naf lin ñeel naafila fal tu gis kon na nga daganal bi ci ca tiim ba jëm yi xamaam la nga xam ne dakar naa tuddoon nan ko fi rajas ci rajas wa ba tey nee na boo tiimalee naafila sax mën ngaa jàll teg ca lu mel ne jàng alxuraan mbaa teg ca lu mel ne laalub kaamil xam nga tari tari alxuraan ci làmmiñ moom sartuñu ci sax ngàllum jàpp waaye dañ ko caa taamu léegi nag mën nga kon boo doon tiimal naafila nga yële ca noppee tari alxuraan ci sa wala boo noppee naafila jàll laal ab kaamil yëpp mënees na ko ca innal faridata ndare farata fa innaha naka moom mu xa tereef na irdaafuha toxalam nga li xëy ha jëm ci dul moom fii maa la nga xam ne shuriha yoona leef na ko ba mu des nag nga tiimal naafila ba noppi bëgg caa teg farata mel ne nga tiim doon dawalal tisbaar tiim boobee nga bëgg caa jàll julli ci tisbaar mbaa nga tiim doon dawalal takkusaan bëgg a jàll julli ci takkusaan maanaam jàppal ne far jàppal ne tiimal farata kay moo mën a jàll yóbbaale teg ci ay naafila waaye tiimal naafila moom du nangu mukk mu jàll yóbbaale farata farata moom day yóbbaale ndax am dooleem waaye leneen mënu ko yóbbaale waman tayam ma ko tiim li fardil xatamati ñeel faratay marax li ñu koy wax marax waaye mooy gee jaasa kon dagan loxo ñeel ko alwitraani safa witar bax ci gannaawam ifhama na nga dégg bi sharti an yekkoona ci sart bu nekkee zaal yi muttasilan di aji yokk bi xëyri taxiirin ci lu yeexe kamaa xalaa naka mu wéyoon xablu ca bu jëkk dafa wax ne boo tiimalee gee te amoon ci yéene julliwaale ci safa witar kon tiim ba nga tiimal gee mën ngaa jàll julliwaale ca safa witar waaye day aajowoo nag bu sus ca te yéene jooju amoon ca boole ci waaw day aajowoo nga yéene ko yéene waale woon defaale safa witar ca ba ngay tiimal gee te it mu ca ba nga noppee ca gee nga susalee ca safa ba wa in tayammamta ndéem tiim nga wa anta te fekk na yow junubun ngay aji amee janaaba fa aw jaba waral nañu ni yota ni yéene min xaa ci janaaba ja nee na boo dee tiim te fekk nga amee janaaba nga xam ne kon la la tee sangu mooy benn ñàkkum ndox ba amee ngànt ci wéradi waaye yow mbaa bu waxtu waxat waaye moom daal yow sang nga waroon def ndax da nga amee janaaba kon da ngay yéene dagan loo julli ànd ak teewul waale janaaba ja mooy da ngay yéene dagan loo nga amee waaye boo yéene yéene dagan loo julli kese te fàtte janaaba ja nag moom du baax moo tax mu wa in tarak taxaa ndem nga yéene jë la dat tayammu mi fa tiim ga fal tu'id kon na nga baamu assalaata julli ga duuna wahamin ci lu dul njuumte bu fekkee da nga amee janaaba war a na sangu am ngànt nag bay tiim ba noppi nag yéene waali woo janaaba ja xanaa yéene yéene ku amee njàppum kese mu nekkoon xamal nekkoon na nga def baaxut faaw nga baamu julli ga mooy da ngay baamu tiim ba baamu julli ga faslu li ab dog la fil xaydi ci mbërëk wa muddatihi akub diiram wa maag la nga xam ne yata àllaqu dana aju bihi ci moom mbërëk waxin wolof la des na ko wax reegal ci waxin tubaab yi yees yi deret la joo xam ne yàllaa ko bind jigéen bu ci tolloo rek di ko gis te nga xam ne wéradi waralu ko am doom waralu ko su ko wéradi waralee mooy dereti jàngoro su ko am doom waralee mooy dereti wasin kon nag kenn ci yaar du ko waral daa bari àtte lool lool nag ci fiq ni ki wàllu julli gaag koor gaag iddaag laabloog jote góor ak jigéen yu demee yépp da ca aju moo tax waxu yadun niswaani way mbërëgi jigéen ña fi taqsimi ci séddale ga talaasu ñett la in xutta ndem dellu nga xalal maalum mi ci la ñu xam jigéen ñay gis deret boo ko dee séddale ci àtte mën nga koo def rek ñetti xaaj mënta génn ñett ñi daatub ci daayin boroomuk tàmbali wala nga ne daatub ci daayin ku mësta mbërëg lu may bi yoon baadaha ku nekk na ci gannaawam moo otaadatun aji baaxoo mbërëg mooy ku ko def dewati ko wa xaamilun ak aji ëmb tarjoo ju dana yaakaar bii ci ëmb ba al ifaadata njariñ koo xam ne tey tey la mas a gis deret mooy benn bi ak koo xam ne gis na ko gisati ko muy ñaar ak koo xam daa am ba noppi nag gis deret li ci ëpp sax ku ëmb moom du ko gis dem nañu sax ba def gis deret muy màndargam ñàkk ëmb ndax jàpp ne ku ëmb du ko gis waaye nag bu ëmbee ba noppi gis ko ci dogalu bi yàlla moom it am na àtte ñu wax ñaata fan lay am door a jeex wa aksarul xaydi gën jaa yàggi mbërëg gën jaa bari lay firi waaye gën jaa yàggi mbërëg mu a li daatil ibtidaa ñeel boroomuk tàmbali maanaam ñeel koo xam ne bii yoon la ko mos a gis xayun mooy fukk ak juróom minal ayaami ci ay fan xindal muqtadaa fakk ñu roy koo xam ne tey tey la mos deret mën naa mu gis ko rek mu ne sotee daal di jeex man naa itam mu am ay waxtu mën naa itam mu am ay fan waaye lu yàgg-yàgg moom du ëpp fukki fan ak juróom bu amee fukki fan ak juróom daal ci deret ji jeexut nga xam ne kon jàngoro la mu sangu tey jullee ko woor te bañ a faale deret ja amal lët yi daal jigéen ja nga xam ne intaadat baaxoo na bihi ci moom min xabisaa ci jëkk li fatil ka loolee la ay la mu ci nam xaadatuha baaxam ba xudal na nga jàpp daaka loolee ki nga xam ne moom nee na gis na ko gisati ko day jàpp rek boo ko masa am ñaata fan la daa am jeex na jàpp loola tey jiitam bu amee loola tey ji daal di jeex loola kon leer na naññ mu des nag bu fekkee am na jiw ba mu daa am jeex te tey moom taxu koo jeex ma ne moom mos ñetti fan jeex te am na ñetti fan te jeexut mu ne wax naa fa intamaa daan dem sax na bi xaaj ci moom addamu deret ja faltasit na yokk talaatati ñett ci ay fan laa taxit bul jeng bu jàng naxu di a wax fa intamaa daa jële teg ci addamu ji ko jiitu kon faaxil day jiitu fenlam dañ mën wax fa in addamu ndem deret ji fa in iddamu te in day dugg ci addamu waaye xëy na loolu ku toll foofu la yitteel daa bëgg wax ne ki nga xam ne moom diiram daa am jeexal deretam bi yoon am na ko te jeexut da ci yokk ñetti fan mais bu fekkee ñetti fan ni bu fekkee dafa daa am ñetti fan deretam jeex tey na am na ko te da ci yokk ñetti fan mu juróom benn bu ci yokkee ñetti fan nag te taxul mu jeex nag nga xam ne kon jàngoro la daal di sangu te julee ko war a ko def yëpp bu fekkee nag yam weesu daa wuute woon am na ci boo xam ne ñetti fan la woon am na ci boo xam ne ñeent la woon am na ci boo xam ne juróom la kon day jàpp lu gën a bari muy juróom jàpp ne tey mooy aadaam su ko amee itam jeex baax na su am na ko te jeexul ba tey mu yokk ci ñetti fan bu fekkee juróom la woon mu yokk ci ñett mu juróom ñetti fan waaye saa yokkee ñetti fan moom du taxul mu jeex rek na jàpp ni jàngoro la daal tàmbalee jullee ko war a ko def yëpp xam ne jàngoro rek la maalam tujaawis li fekk ka tilka joojee aada xam sa taxasee fukk juróom yow man ci ay fan fala sayda kon déet ndolleen kat yoo tabaru dee fi ko xalam xunaa ko foofee xam nga daa waxoon ne diir bam daa am jeex su ko amee bi yoon te jeexut da ci yokk ñetti fan mu ne bu fekkee dafa aadawoo daa am fukki jeexal te ji moom juróom te jeexut ci yokk dara dara dara day jàpp ne rek liy génn jàngoro la su fekkee daan am fukki fan ñeent jeexal te mu am ko jeexut benn fan la yokk rek mu yem ci fukk ak bu fekkee daan am ñett jeexal te mu am ko jeexut ñaari fan la yokk mu yem ci fukk ak juróom bu nag fukki fan ak ñaar jeexal nag tey mu am ko tijjeexal kooku mën naa yokk ñett moom mu yem ci fukk ak juróom waaye fukk ak juróom moom du ko weesu benn yoon su ko naree weesu rek nga xam ne jàngoro la mu des kenn mooy ki ëmb ak saru xoogal njaay yàggimb rek li xaamilin ñeel aji ëmb bax da abin ci gannaaw ñett ci ay weer fahiya mooy fukk ak juróom yow man ci ay fan oh suub na nga lim daa wax ne koo xam ne daa am bu am ñetti weer door a gis nag deret jooju xamal ne kon mën naa yàgg ak moom ba ci fukk ak juróom fan wan xawuxaa ak lu nuroog moom lu nuroog moom day wecci ñaar fukk waaw day wane ne ki am bu am ñetti weer gis ko la ca dale ba muy am juróom benn weer ñoo ci yemoo saa yu fu gisee deret rek mën naa mat fukki fan ak juróom ba ci ñaar fukki fan waaye nag bu naree weesu ñaar fukk na xam ne kon jàngoro la bañ koo faale wa bax da win gannaaw juróom benn nag min ashurin ci ay weer xadduhoo limam ba duri xameef na ko kaafa mbir mu ñaar fukk minal ayyaami ci ay am bu ba am juróom benn weer la ci am doom bu fi gisee deret xam ne kon mën naa yàggee ñaar fukki fan mën naa dem itam ba weer foofu dañ fi nattale woon na xam waxaa moom bu fekkee gannaaw juróom benn weer ci ëmb bi la gis mbërëg moomu mën naa yàgg ak moom ñaar fukki fan ak lu ni mel mooy ba ci weer li mu nag léegi mooy jamono yu ëmb ba kenn muy am ñetti weer kooku li ci ëpp dañ koy jàpp ne rek wax ji gën a mooy na aadaam daan toll toll rek na aadaam daan toll rek lay jàpp loolu lañ gën a sukkandikoo murhaa digal ko bi tal fiixin ci ak tàppe li koy tukkam bi la ngir mu mott mi aadataxaa baaxam ba itam xitaaxu ndem ak dog xasala am na ba tey dañuy bañ ci naxu itam xitaahun di bañit isaa xasala teg ci im xitaahun bi ko jiitu waaye loolu nag kii gëstu naxu lay yitteel kii mën naa jàng ni mu rek noonu ba ba muy àgg foofa daa wax ne bu fekkee jigéen ji day gis deret boo liggéey du ko gis loolu mooy génnal kon day wàññi rek bis yi nga xam ne ca lay gis deret bu keram yi mat na aadaam daan toll bu na tolloo jeex kon baax na bu na tolloo du jeex nu yokk ci ñetti fan mel ne koo xam ne am ñeenti fan deretam jeex tey nag moom ni deret yooyu mooy bu gisee tey deret boo ëllëgee du ko gis day wàññi fan yam koy gis kese te bañ a wàññi ko dul gis wàññee fan yam gis na ba mat ñeent nag mu xam ne kon aadaama ngoog bu jeexee kon leer na naññ bu fekkee jeexul na mu yokku ca ñetti fan muy juróom-ñaar gannaaw ñetti fan yi nag moom du ca dolliwaat dara bu jeexutin nga xam ne jàngoro la walam te jus daganut salaatu xaa idin aj mbërëk wala tawaafuha du caageen ak wër kaabaam wa massu mushafin ak laalub kaamil xalaa bu kawe na wala laxaa déet di ko ñeel ay dan ba tey siyaamun koor mutlaxan gu mën di doon ay limu nam fardan kooru farata aw tatawaxan wala ngàtt nga kooru ngàtt nga mooy kooru coobarewu fa xaqiqan na nga dëggal jigéen nag bu gisee deret laata deret jay jeex bu saña julli araam na ci moom te bu ko defee itam du baax bu ko defee nag bu demee ba laab nag te amul lum sangoo it kon day tiim door a julli waaye li fi ci moom di génn daal moom araam na ci moom muy julli ba tey wër kaaba noonu la du ko mën nekk bu armaloon aj ba am armal xumra mën naa def yëpp ba mu des wër kaaba ga wër kaaba ga moom du ko def lu may dara ji laa jeex loolu mën na ko fàttee lu yàgg yàgg ba tey du mën a laal ab kaamil ba tey du sañ woor araam na ci moom muy woor genn koor moo xam kooru farata la ni ki ramadan moo xam kooru coobarewu la wala laxaa dee di ko ñeel ay dan ba tey doxoolul masjidi dugg jàkka wala bi baytiha ak doonte ci néegam la wala ci këram xalal mootamadi ca la ñu sukkandikoo ba tey jigéen bu xasee amee deret jooju du sañe dugg jàkka romb rek jàll du ko mën romb dañuy jël tof waaye romb rek jàll wax ci gën a wër ci yoon maa du ko mën doonte jàkk ji la koo def ci biir néegam mbaa ci biir këram it du tax mu sañ faa toog mbaam mu romb rek ci buntu bee jàll ci bële laakin waaye nag xadaa u sawm bi fayu koor ga baax da tuxuri ci gannaaw laab ga xaleha war na ko duuna salaatiha ci lu julleem nga fadri na nga xam mu ne waaye nag bu ñu nee araam na ci moom mu woor araam na ci moom mu julli xamal ne ko dañ noo digal ne koor ga moom na ko fay te julli ga moom du ko fay loolu la santaane julli ga moom du ci fay dara dara waaye koor ga nag moom bu dee kooru farata moom faaw da koy fay ki bu dee ramadaan wa jëw wasoo daganal nañu qiraatal